Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf ubbi leen observateur Macky Sall na réew mi budget juróom-benn fukki milliards ak benn yi fi ñoom lay wàdd woote woon bàyyi fi Macky Sall def na ko séddale bukki ba ñaar fukki milliards ak ñett yi ñu waroon a defaree tali bi war a jóge aéroportub Diass wutali Thiès Macky jël na xaalis ba dugal ko feneen yamul foofe ndax plan tàkkal beeg jiw weeg engrais bi Macky def na ci xaalis bu dul jeex la seene kay nañu Macky Sall fàttewul boppam ndax yokkulu na juróomi milliards ci budget bi présidence de la république war di doxee libération ne ndax moom it Macky Sall daf ko beral loxo laas na ko wax ji yemul foofe ndax kii di Benoît Sambou ak Aly Ngouille Ndiaye it ñoom waxatuñu dara dañ leen a tibbal ba ñu doyal Abdoul Mbaye yéenekaay bi nañu moo di kuuñ ba ndax la mu yore mu di budget bi mu war a doxe Macky Sall daf caa dagg as lëf Walfadjri nañu Macky Sall tanewul Abdoulaye Wade lu bari ndax ci juróom benn weer yu mu yor réew mi rek di ko doxal feeñal na ne tànki Abdoulaye Wade yi la topp moo di dafay tañax-tañax di lambatu ba ca topp mooy ne Abdoulaye Wade daan ko neex fal ku ko neex folli ku ko neex roppi kenn ca ñamu roof mi quotidien mu di ki mu bëgg a def chef d'état major général des armées waa ji Ousmane Sall la tudd yéen bi nañu kookee la Macky Sall tegi bëtam ngir mu remplacer kii di général Abdoulaye Fall waaye nag ñaar moo cee ñuul benn bi moo di waa ji benn at moo ko teree retraité ñaareel ba moo di ba laajee waa DIRPA lu ñu ci xam la DIRPA tontu taskatu xabaar yi la quotidien yi moo di dogal bu ni mel yéen ñu ko yëgal journal bi di la quotidien nañu yi ñu fi doon wax naan dañoo wàññeeku njiital duwaan nee du ko dégg ci xët mu njëkk Le Soleil Mouhamadou Makhtar Cissé mu jiite duwaan ni recette yu wàññeekuwul au contraire yëf yi dafa yokk ci populaire douanier bi nañu juróomi téeméeri milliards ak fukk ak ñett lañ doon séntu te jot nañoo amagum ñetti téeméeri milliards ak fukk ak juróom li am ci Afrique mi ngi ci Sud Quotidien mu di tux mu metti mi doomi Afrique yi nekkee yéen kaay bi nañu loolee la ñu bëgg mu jeex ba tax nekk ci teggi pexe ki yoo xam ne bu sotte ki mi gu metti gi doomi Afrique yi nekkee bu jeexul dina wàññeeku Sénégal rek yéenekaay bi nañu at mu yàlla sàkk danañu jaay lu toll ci ñaari milliards yi cigarettes direct info ne ko gone yu jigéen yu ndaw yi ñoo jugtee léegi am tuux ndax téeméeri gone yu jigéen yoo jël yu am fukkeet ak ñett ba fukkeet ak juróom fukk yépp dañuy tuux Balla Gaye 2 ku ko takkale ab ñaareel sunu làmb nañu en du bàyyam ndax Double Less mi bàyyi Triple Less di Balla Gaye 2 nee na musta yëg ne Balla Gaye 2 takk na ab ñaareel ñett tubaab naan ko 3 wala bokk triplé sunu làmb nañu moom la Eumeu Sène di séentu seen di gis ñu gisandoo ji ci Walfadjri Grand Place li am ci tribunal li réew mi ubbi leen bi doore ko ci palais justice bu Ndakaaru ndeke la am ci xarxa fuufa moo raw fuuf li am ci làmb ji yéenekaay bi nañu ci liggéeyante bu metti la nekk képp ku ñu war a atte yaa ngay sëriñtu ji siis bala war a ak magistrat bi yéenekaay bi daje ci ki siis ak i ku ca nekk lang ca wax ka njëkke kàddu gi ab sandarma la nee na léeg day a ne fa la suisse war a toog benn avocat ñu naan ko maître kan ne wàllu xarxa fuufa yooyee lu am la bañ na ko sax ba ñoom seen cabinet yi am na ci dossier yoo xam ne duñu ko mën a ubbi waa di nettali ni benn bés seen nas ndaw da koo seet si jox ko dossier ne ko nag dama bëgg nga jël say matuwaay ndax ki ma ko séqal dafa gëm gàllaaj avocat bi di maître kan ne ba ma ko joxee atum 2002 la woon ba 2012 boobee mënumaa fexe ba tijji ko yëf yi nag a kaay a heure xëy ci dikk ak ñun ubbil bi lu toll ci juróom fukki bàmmeel ak juróom-ñaar yéenekaay bi nañu dañoo xotti wor ma ja la am moo di ay nit ñooy seeni néew dikk denc leen ca armeel yooye jëlub croix siisu defar ko ba mu jekk teg fa gaa yi bàyyi ba nit ña dem ñu dikk dajj croix ba yóbbu yëf yi yamu rekk ci armeel yi Saint-Lazare Béthanie ne armeel yi bel ña ngay dajji croix yi di yóbbu ba ñuy wër bàmmeel ya lu fa jekk mën a jarob xaalis ñu jël ko yóbbu